fan nga jëm mu wax la ko nga xam yoon bi nga ne ko kaay ma woon la yoon bi tey boo gisee sa bopp comme xale boobu nga xam dafa jaaxle confus nekk en détresse ni nga koy yërëmee ni nga koy dalalee yërëmal sa bopp de cette même manière nga dalal sa bopp nga giifal sa bopp ah, ah. asalaamaaleykum wa rahmatullah chers internautes après sujet bi ñu leen indil si wàllu dépression stress anxiété et cetera ñu bëggoon leen indil nag benn solution bu gàtt bu efficace. en général nit ñi nga xamante ni dañuy euh, faral di am dépression stress lépp rek mu ngi xew ci li nga xamante ni mooy pensée interne yi bu ñu nee pensée interne nag mooy xalaat bi ngay xalaat intérieurement ci sa bopp ak ci nit ñi. en général booy faral di culpabiliser sa bopp di teg sa bopp ay yenn yu diis ah su ma deful woon lii li du am c'est dama faute est-ce que waruma mel nii est-ce que waruma nàngam lii nee nañu maa def lii nee nañu ma wax lii parce que nii laa mel parce que ni ma mel baaxul parce que nangam sàngam déculpabiliser sa bopp sois tolérant avec bëggal sa bopp yërëmal sa bopp xoolal sa bopp comme benn xale boo xam ne danga dajeek moom mu réer xamul fan la jëm muy jooy triste nga woo ko sukk ci wetam laaj ko lan moo la dal mu ne la dama réer loo soxla fan nga jëm mu wax la ko nga xam yoon bi nga ne ko kaay ma woon la yoon bi tey boo gisee sa bopp comme xale boobu nga xam dafa jaaxle confus nekk en détresse ni nga koy yërëmee ni nga koy dalalee yërëmal sa bopp de cette même manière nga dalal sa bopp nga giifal sa bopp nga soulager sa bopp nga comprendre tamit sa bopp nga tolérant ak sa bopp nga xam ne doo malaaka da ngay juum da ngay def ay erreur yonent bi sallallahu alayhi wax na ko ci ci xadis kullu bani aadama xatta wa xayrun xatta ina tawaabuun juum doomu aadama ñëppay juum képp ku naan man duma tooñ man duma tooñ waaye ku ma tooñ man ñun ñëppay tooñ danga koy yëg wala nga bañ ko yëg dangay tooñ sa bopp dangay tooñ sa moroom dangay tooñ sa borom kon su ma déggee nit ñi naan man duma tooñ waaye ku ma tooñ ay ree may jàpp parce que je me dis que c'est l'ignorance de l'être humain te li ñuy tooñ suñu bopp nag moo ëpp sax li ñuy tooñ suñu morom on est déjà intolérant avec nous-mêmes dañuy culpabiliser suñu bopp dañuy yàq suñu bopp intérieurement malheureusement li ñuy tooñ suñu bopp nekkul loo xam ne ñun ñoo ko installé suñu bopp automatiquement non mais c'est l'ancrage qu'on nous a donné par rapport à l'éducation ndax tey suñu système éducatif dafay détruire par des paroles rabaissantes blessantes ay mots yoo xamante ni daf lay daf lay daf lay wàccee ay humiliation du coup nga màgg ci loolu am ancrage boobu yow sa subconscient li mu enregistré ci sa personnalité ce sont que des négatif kon boo demee ba màgg bëgg a dindi loolu dafay metti day jafe parce que amoo beneen élément pour nga dindi ko lii moo lay jox occasion nga xam ne ah d'accord kon man modd bi way xalaatee ba mënuma yërëm sama bopp mënuma baal sama bopp mënuma comprendre sama bopp c'est parce que dañ koy installé sama bopp di ko ma nekk xale kon il tant temps que ma dindi ko il tant temps que ma accepter man ni ma mel dama gaaw a mer dama nerveuse d'accord loolu sama défaut la accepter ko nit kase laa ci sama ay défaut la bokk dama impulsif dama gaaw a réagir d'accord dama koy accepter sama ay défaut la bokk dama yor jukko joo xamante ni neexul nit ñi d'accord sama ay défaut la bokk parce que mënoo parfait malheureusement defal ma développement personnel bu dul développement personnel buy jinne doo mu sama tu auras toujours des imperfections damay faral di wax ni bu ñu xoolee euh, ku ci mel ni saxaaba bi ñu naan Omar ibn Xattaab nga xam dafa impulsifoon impulsivité am taxoon na. yonent bi sallallahu alayhi ku ko doon attaqué day jóg jël jaaseem ne yonent bi wax ma rek ma dagg bopp bi tellement qu'il était impulsif day réagir ci saa si mais est-ce que mës nañu dégg benn xadis boo xam te yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko rabaissé ci comportement boobu wala daf ko ne Omar nii nga def baaxul da nga tàng xol waroo ree non mësuñu gis xadis boo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko ŋàññi ci jukko boobu jamais et pourtant impulsivité boobu daf ko yoroon balaa muy nekk jullit mu dugg ci l'islam indaale ko waaye yonent bi sax salaam nekk ki nga xamante ni mooy le sage ci xigmaam daka daan dalal dëfal ko ba nga xamante ni dafa dem ba accepter impulsivité boobu di ko jëfee d'une manière spirituelle ba nga xam ni dootu ko guider dootu ko sonal kon yow accepter sa impulsivité yow yaay kan bu doo am imperfection yaay kan donc forcément am nga ay défaut accepter ko nangu ko soit fier ci défaut yi nga am. am na li nga xam ne défaut la yu naturel ñun ñëpp dañ ko am am na li nga xam nag feebar la ndax par exemple am na ki nga xamante ni tey day fen day tricher day jaxase loolu ay feebar comportemental dañ koy faj mais défaut mooy li nga xam ni mooy sa nature parce que ñun ñëpp dañu am tempérament tempérament bu ñu ko waxee mu ngi mel ni texture de matériel texture matériel mooy lan mooy tey boo laalee naay dafa nooy boo laalee miir dafa dëgër. boo laalee ndox dafa liquide noonu la ñu mel nag ñun nit ñi dafa am ci nit ñi ñoo xam ne seen tempérament dafa dëgër am ñoo xam dañu nooy am ñoo xam ne dañu fluide léegi tempérament boobu c'est par nature da nga koy judduwaale yàlla moo la koy sàkkal amul loo ciy def yow te mënoo ko changer mbaa nga jéem ko changer ba mu dañ loolu mooy sa personnalité mooy doon sa personnalité de base boo ci booleeg am degré introversion wala extraversion mu nekk loo xam ne yàlla moo la ko tànnal soit fier yàlla nit bi mu la def danga koy accepter nga fier ci nga nangu ko boo paree nag lépp loo bëgg améliorer parce que mënuñu changer kenn ci ñun du changer muy man muy yéen muy keneen mais mun nañu améliorer dama gaaw a mer nan lay def ba bu ma meree du ma def dégâts gaaw a bi du dañ de li mën a dañ mooy boo meree doo def dégâts léegi boo daan mer nan ngay réagir da ngay wax léegi su ma meree naa noppi. su ma daan mer damay toj léegi su ma meree naa bàyyi toj su ma doon mer par exemple donc gaaw mer bi du dañ loolu sa nature la ci yow la bokk sa défaut la mais nag nga koy cadré mooy réaction yi foofu la ñuy defar donc sa attitude say défaut mën nga ko spiritualiser canaliser ko boo ko nangoo ba pare defal sa boppu xarit mooy tey boo defee erreur par exemple def nga erreur parce que xëy na ñàkkul ni jëflante nga ak nit amoon nga tuuti sa intuition xawoon na la alerte et pourtant décidé nga dalal sa xel jox ko chance bi nga xamante ni moom nga yaakaar ni war nga ko jox ko jox ko ko et pourtant bi li nga doon xaar ci moom ci si sa intuition def na la ko. nga commencé naan ah Fatima Zahra yow ni nga dofee pourtant de ah, waxoon naa la ko de newoon naa la kii ni ma ko gisee nii nangam sangam waaye pourtant dégluwoo ma mais non. dama décidé woon jox ko chance jox naa ko chance il s'est révélé le contraire ci li nga xam ne moom laa doon xaar ci moom c'est pas la fin du monde je ne suis pas stupide déedéet dofuma c'est juste que dama doon may nit ki chance tolérant bañ di tëjal nit tout le temps bunt boo xam ne après bu demee ma am regret kon bul culpabiliser sa bopp ci loo xam ne nekkul ci sa responsabilité yow li nekkoon sa responsabilité mooy nga jox nit ki opportunité à ce que mu saisir ko saisir ko kon yow amoo ci désengage toi amoo ci benn culpabilité da nga jëflanteeg nit mu am réaction bu négatif à ton sort loolu warul tax nga définir sa bopp comme nit bu bon déedéet nit ki dafa réactionné par rapport ak moom li muy dund li mu gis ak li muy vivre kon bul jël sa bopp rek tout le temps ngay taxer sa bopp kon boo accepter sa bopp boo bëggee sa bopp am estime de soi mooy xoolal say valeur man nit bu dëggu laa ah waaw loolu dama ko bëgg sama bopp te dama koy accepter man nit bu sincère la lu ma bëgg a wax même bu ma koy wax avec euh, sagesse ak yar ak teggin danaa ko wax jël ko nga def ko muy sa atu nit bu généreux dama koy jël def ko muy sama atu nit laa bu compréhensif dama koy jël def ko muy sama atu nit laa boo xamante ni dama am indulgence dama koy def ko sama atu kon say qualité bul xaar ku la ko taggal bul xaar ku la ko wax yamaleel ku la tagg ak ku la xas parce que nit ñi en de compte xamuñu la yow yaa xam sa bopp yow ndax am na loo xam ne mu ngi ci yow nit du ko njortu ci yow muy mbaax muy mbon kon taggal sa bopp balaa kenn di la tagg taxawal jàkkaarloog seetu di ma taggal sa bopp parce que loolu moo permettre nga développer sa auto estime sa valeur ba nga xam ni ku la tagg ak ku la tu n'en as rien parce que loolu dalee pene bu la nit xoolee ci kaw ba ci suuf par exemple Fatima Zahra mi ni mu fuuyee ak mu bëgg bëri nangam sangam ak ni muy doxalee man de de quoi je m'en mêle loolu sa opinion la loolu yow noonu nga gisee noonu nga ma interprété ce que ça veut dire que man noonu laa mel non donc pourquoi ça doit noonu nga war a euh, recadrer say pensées Fatima Zahra mi dafa ñàkk kersa parce que ñëw naa laaj ko mu tontu ma tontu bu gàtt. pourtant man j'ai pris le temps de se répondre bu dee sama répondre dafa sama réponse dafa gàtt si yow wala da nga ko gisee que ni dama ñàkk kersa parce que xëy na la nga bëggoon ci man amoo ko la nga doon xaar amoo ko mais say attente moo la nax mais man li ma la war a jox jox naa la ko parce que loolu laa la mën a jox samay capacité foofu la yam kon yow sa attente nga war a accuser mais pas man ndax yaa yaakaar ci man loo xam ni wóor la woon ni sax danaa la ko jox kon lu tax ma war a sentir mal par rapport au jugement de l'autre kon defaral sa àddina nit ñi dañ may wor lan mooy wor trahison à chaque fois nga ne nit daf la wor c'est parce que da nga yàq da nga jël sa yaakaar euh, teg ko au delà ci nit bi lu mu la mën a defal ndax tey yaa ngi sekk nit jox nga ko kàddu jox na la kàddu moment bi jot na moom respecté wul engagement wam mais est-ce que xam nga nit bi balaa mu lay wor boppam la wor ba pare. parce que ñàkk respecter engagement boobu moom réputation moo ci moo ciy subir les conséquence yow sentiment bi ngay am mooy sentiment wu respecté sa engagement d'accord mais en fin de compte bu ñu xoolee la réalité de choses bu dee def la ko def def ko keneen def ko keneen def ko keneen mais moom kooku am na problème àddina kon ne te mal par rapport ak réaction bi nit ki am waaye ba tey ñuy relativiser di xam ne doomu aadama nag àddina bi bu ñëwee bu dee dañuy sincère. yàlla suñu borom bépp doomu aadama bu mu indi ci sa dund chaque seconde qui passe am na lu mu la war a jàngal kenn du ñëw ci sa dund par hasard sa n'existe pas képp koo dajeel na sa ce mu xool la sourire la ne la asalaamaaleykum wa rahmatullah ci sa destin yàlla boole woon na ko si pour mu jox la boobu sourire ngir mu am énergie positive bu mu la apporter ci sa dund tey yaa ngi doon dund ay xat-xat pendant des années xamoo ma xaw ma la mais yàlla ba mu décidé indi la solution daf la tegal ay escalier yooyu yéeg ba egg si fii ci man te defoo ci benn effort kon hasard amul tout sa fait par des calculs bien précis kon boo gëmee ni sa dund gi doomu aadama boo mën a xam même bu dee expérience bu mauvaise nga dund ak moom jàppal ni expérience boobu nga déterminer comme mauvaise expérience daf lay jëriñ moo tax yàlla teg la ko pour nga am loo jàng ci sa bopp jàng ko ci àddina bi dama ne remercier ñi nga xamante ni dañ lay teg ay naqar wala dañ lay teg du toor wala dañ lay dund loolu metti remercier leen parce que contribuer nañu ci personnalité bi nga dressé muy lu positif contribuer nañ ci fortifier sa personnalité contribuer nañu ci lu bëri ci sa développement kon ñooñu dañ leen war a remercier mais waroo leen xarab waroo leen ŋàññ waroo leen bañ waroo leen xas parce que en fait de compte du la jëriñ dara parce que nit ñi des fois yàlla ma ko wax ci alxuraan damay yëkkati ñii nattoo ko ñii yàlla day jël sa propre doom natt la ko bu teg la fitna mais dafa am lu mu la war a jàngal ci yow yàlla day jël sa propre borom kër natt la ko wala mu jël sa propre soxna natt la ko wala sa waajur te doo ci mën dara sa waajur la loo koy def dara ndax waajur bu nekk mi bu dee da lay mbugal moom pour moom mbugal yooyu lu baax la la si bëggal et te looloo li leer intention mooy mbugal yi mu lay mbugal c'est pour nga baax. kon lu tax léegi beneen doomu aadama ñëw dina def dara nga ni kii parce que daf ma bañ moo tax mu ma koy def non mën am intention am c'était pour te porter du bien même s'il t'a kon gis nga xalaatin rek moo am solo ci àddina te bu ñu defaree suñu xalaatin mooy suñu puissance wala mooy suñu faiblesse suñu bopp bii li fiy xew mooy conditionner suñu comportement suñuy acte ak suñuy jëf kon boo demee ba baal sa bopp dootoo toppee kenn dara. man duma topp kenn dara man lu ma nit def je dikk dis que c'est le fruit de mon interprétation wala nit bi am na lu ma war a jàngal mais lan laa ko war a sas lan laa ko war a teg ci kawam di ko accuser rien du tout à chaque fois am loo xamante ni lu négatif la lu ma dund man je tire les leçons là-dessus mais duma culpabiliser kenn à chaque fois nga déculpabiliser sa bopp dootoo culpabiliser kenn gis nga culpabilisation dafay yàq imaan dafay ruser la fois daf koy xomaatloo daf koy xuurloo ndax nekk di topp naan ba ma su ma su ma est-ce que du ma woon c'est loolu daf lay yàq yàlla li mu soxla ci yow mooy lan nga reconnaître que ni faible doo dara donc doo doon dara ci kanamu yàlla nga reconnaître que ni yàlla mooy ki nga xamante ni moo la mën a guider moo la mën a taxaw moo la mën a jàppale ba nga doon ki nga bëgg a doon nga reconnaître que ni même bu dee danga nga def faute que ni tu es une personne bu incomplet nit bu motadi nga moo waral ngay def bàkkaar looloo waral yàlla ne la jéggalu ma ma jéggal la waaye léegi bu dee yàlla jox la opportunité le pourquoi ngay nekk di laajte la comment lu tax cest à yàlla nii bay ngay am na ñoo xam ne yéen bay naan lu tax yàlla di ma teg lii lu tax mais parce que yàlla bi mu la fi wàccee waxoon na la li fi xew de newoon na la àddina këru nattu la da la fay indi pour tester la ba pare ngay laaj yàlla lu tax nga may tester te pourtant yàlla ne woon na la dama lay tester test bi donc euh, euh, boo demee bay laajte lu tax mooy yow comprendre lu la fi indi kon sa mission de vie mooy des test test bu jeex beneen a ngi ñëw préparé wul bul jàpp ni rek natt bi passé na damay balaaxal ma daan déedéet na nga armé wu te defaru gën a fortifier sa bopp te xam ne bu benn jeexee bu yomb bu gën a garaaw bu gën a metti mu ngi te bu ñëw bu nekk dama naan gis nga nattu dañ naan nattu day defar nit dama ne déedéet nattu du la fortifier mais nattu dafay génne force bi nekk ci yow parce que nattu dafay fekk force boo xamante ni ci sa parcours mu nga fa woon ba pare mu génnee ko ba yow dangay jàll nattu bi te naan kii est-ce que man la man jàpp ma ne woon am naa set force intérieure parce que li tax ma ne nattu du fortifier mais dafay génnee sa force mooy ñaati nit la fi nattu yàq. ñaata nit la nattu daal amuñu force intérieure dañuy sombre dans la dépression dañuy yàqu dañuy sombrer dans la folie parce que amuñu woon de matériel de base amuñu woon benn construction mentale bu solide amuñu woon benn taxawaay bu dëgër et que natt boobu day ñëw déstabiliser leen yàq leen détruire leen kon nattu dafay révéler qui tu es vraiment yàlla wax na ko ci alxuraan ba pare yàlla leen dama leen di nattu ngir ma mën a distinguer le vrai des faux ñi sincère ak ñiy yokk yokkal ak ñiy euh, dara balaaxal ma dar ak ñi nga xamante ni dañu persévérant ak ñi nga xam ne daanaka dañuy bàyyeeku kon nattu mooy révéler ta vraie vraie nature kon nañu bàyyi xel que ni nattu moomu mooy li ñuy defar waaye mooy li nga xam ne mën nañu yàq kon nattu daf ñuy fekk dafay révéler ñun ñooy kan révéler suñu relation ak suñu borom révéler suñu relation ak suñu propre personne révéler suñu relation ak suñu entourage suñu environnement donc quand bien tu te bien ngay sentir sérénité quiétude tey boo toogee nga angoissé nga stressé jàppal ba sell nga laal sa tapis si jaada tuddal yàlla ñaanal yàlla yaa bi li ma yëg sama xol bi yow yaa ko xam maa ngi lay ñaan soulagement maa ngi lay ñaan apaisement maa ngi lay ñaan sama xol bi nga yaatal ko ba mel ni sa univers bi yaa rabbi maa ngi lay dégg sama yi dina ñaan nga jéggal ma ndax doomu aadama bu doye di laa jéggal ma nga may ma ma jéggal sama bopp yaa rabbi maa ngi lay ñaan nga may ma ma tolérance sama bopp nga nga yërëm ma nga may ma ma yërëm sama bopp waaye yaa maa ngi lay dénk sama bopp nga toog xalaat xool univers yàlla bi ni mu toll yow nga nekk benn minuscule personne bu tuuti boo xamante ni yow daanaka tekki woo dara comme ni ko yàlla suñu borom di waxee gut expert ma nga woon boo xam ne bu ko mu takk nga raxasu donc boo xoolee sa bopp par rapport à ça yow lan nga mën a defal yàlla loo xamante ni dafay wane ni yow tu es indispensable dans cette vie tu pas indispensable boo deewee rek keneen dafay dafay ñëw remplacer kon bul saboter sa dund bul yàq sa dund. importance bi nga am moo tax yàlla sàq la même si tu es minuscule yàlla di la déglu di la dégg nga di ko ñaan nga di ko woo mu di la wuyu di la wan mais doo jéem a gis doo jéem a xool ubbi sa bët au delà di xoolee sa bëtu xol mais pas bëtu bët mais sa bëtu xol di sentir sa borom di ko yëg di ko ñaan dénk ko sa dund dénk ko sa xol dénk ko sa bopp nga désengagé wu nag bàyyi nit ñi teg leen ci suuf topp sa bopp. defar sa relation ak sa bopp lépp lu la ni def revenir aatal ci sa bopp yow lépp ci yow la source bi ci yow la kon c'était juste benn audio boo xamante ni dinañu permettre à ce que lépp li nga xamante ni ñu ngi koy dund ñu defar suñu pensée intérieure relativiser suñu manière de voir defaraat ni ñuy xoolee ak ni ñuy gisee àddina parce que dinañu permettre à ce que ñu mën a lâcher prise def résilience. jël suñu propre personne en charge désengagé wu ci toutes les choses qui nous entourent jéggal nit ñi jéggal suñu bopp ñaan yàlla mu jéggal ñu jéggal mboolem mu jul kon salaamaaleykum wa